asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ak xarit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di am mbégte ak kontante saa suñuy jàkkaarlook yéen ci l'émission des émissions di nuyu mbokk yi nga xamante ni ña nga ca bitim réew eh, sénégalais yi nga xamante ni seeni xel seen xalaat seeni yitte lépp ñi ngi ko teg ci li nga xam ni mooy seen réew muy loo xamante ni lu am solo la ñuy rafetlu seen patriotisme ak seen bëgg réew mi wane nañ ni du seen boppu képp mooy li nga xam ni moo leen ñor waaye li leen ñor tey mooy seen réew jag di nuyu itam sénégalais yi nga xam ni ñu ngi nekk ci biir réew mi di amal ay taxawaay yu am solo di wane aussi seen patriotisme maanaam seen bëgg réew mi loolu nag di loo xam ni feeñ na ci pénc mi ndaxte bu njëkkoon am na loo xamante ni moom lañ daan faral di wax waaye dafa mel ni senegaal léegi génn nañ ci loolu lu ci mel ni sama bopp ma la gënal du bañ naa la balaa nga naan naam ne fa yooyu yëpp di ay kàddu yoo xamante ni bii tey mel na ni jóge na fi loxol kajoor day weesaloo mu nekk ay kàddu yoo xam ni tey jàpp naa ni li tardeel réew mi yooyu bokk na ci waaye mu mel ni senegal yëpp dañu duggaat cib néeg lëlu génn yëg ni war nga mën a jariñ sa réew sax donte jariñuwoo ca loolu nag moodu moodu yi wane ci lu am solo ndaxte à chaque fois léeg-léeg Assane Mesere fàttali ko daldi ne moodu moodu yi de da ngay gis ni lu bari dañ koy def ci réew mi te dañ koy wuute loolu nekk loo xam ni ñi ngi leen ci gërëm di leen ci sant seen ab taxawaay am na solo ak ni nga xam ni noonu la ñuy gindee doomi réew mi mbokk yi xarit yi tey ñu war a waxtaanee li nga xamante ni bii moom la ñuy wax l'émission des émissions daañu waxtaanee ki nga xamante ni kii moom lañuy wax maître El Hadj ginnaaw bi nga xamante ni bii ab dogal. daanu na foofa nga xamante ni fii mooy ca Casamance réaction bu njëkk boo xamante ni bi amal na ko ginnaaw bi mu ko fekkee ci ab plateau mu joxe gis-gisam xalaatam kon danañ ñëw ngir waxtaane la mu wax joxe joxeti tamit sunu gis-gis ak sunu xalaat keneen ki ñu war a waxtaanee Pape ginnaaw bi nga xamante ni bi ña ngay ca àtte ba majambal bind ab tweet Pape Alé génn indi ca ay tontu muy loo xamante ni bi lu am solo la loola it danañ ñëw joxe ci sunu gis-gis ak sunu xalaat ci li nga xam ni mooy mbir moomu Boun Dionne mi nga xamante ni bi amal na ab plateau moom it jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Papa nga njaay yëkkati ay kàddu yoo xamante ni bii jàpp naa ni kàddu la yoo xamante ni bii sénégalais bu ne war nga cee mën a joxe sa gis-gis ak sa xalaat ci li nga xam ne mooy kàddu yi mu yëkkati balaay dara di xew dañuy tàmbale li nga xamante ni bii moom la ñuy wax émission bi jëmale ko ci ki nga xam ne moom lañuy tuddee. maître El Hadj Diouf maître El sax defe naa ni euh, warta nekk ki nga xam ne moom la ñuy démarrer dañuy war a démarrer ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Pape Alé Niang parce que laataan dogal bi di wàcc la kon dañuy demare ki nga xam ni moom la ñuy wax Pape aleña ndaxte dafa am loo xamante ni bii xewoon na démb ca Casamance mu mel ni amoon na it loo xamante ni bii gis nañ kooku di Madiambal def ko mu am loo xamante ni bii def na ko kon dañuy ànd déglu ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax Pape Alé kàddu yi nga xam ni yëkkati na ko je vous en prie. tweet na frère juge bi dafa bokk ci ay adjoint wu Ousmane Sonko. ñu bëgg a jaxase carte gi di wax. waaw xanaa ñoom dañoo fàtte ne. juge boobu toog tey ji àtte. ñoom ñoo ko mere woon. ci décision bu mu jëloon ban ci décision bis juge boobu ñëpp xam nañ ko ci liberté xam nga lu tax mbiru Abdoul mbay ci divorce bi moom moo jëloon décision relax pur et simple Abdoul Mbaye ñu mere ko ci loolu génne ko Dakar sànni ko tax yàlla rek yàlla du complot day dogal coow li na kur ngeen dégg ko ma ne coow li na kur ñu dégg ko wooy juge bi lii ak laa xanaa kon bu ñu waxee ne juge bi àtte tey loolu la wax xanaa ñu mën a jàpp ne juge cour suprême bi àtte ne direction générale des élections bu mu jox li nga xam ne moo di ay de parrainage Ousmane Sonko juge boobu parce que frère dafa nekk secteur général ministère de la justice beneen frère nekk conseil constitutionnel moo tax mu jël dogal boobu le moo ne ay avocat Ousmane Sonko am nañu ngor goo xam ne récuser wuñu juge Abdoulaye Ndiaye bu cour suprême nangu nañ la wax ñu jàpp ko lu leen neex lu leen naqadi ñu jàpp ko continuer dem tribunal. jërëjëf Pape Alé ci kàddu yi nga xamante ne bi yëkkati na ko indi ay leeral ngir wane ni juge bi nga xamante ni bi àtte na démb Ousmane Sonko delloowaat ko ci li nga xamante ni bi moom lañuy wax. Eh, maanaam liñ ñawoon raje nañ ko mu daal di dindi loola juge boobu ndekete dañ ko randaloon fii ginnaaw bi mu àttee mbirum ab du mbay ñu jàpp ni juge la boo xamante ni bi da leen di ay jafeñ-jafeñ waaye ndekete sunu borom rekk mooy ki nga xam ni mooy ki man tey juge boobu moom lañ dajalaat ca fa nga xam ni mooy Casamance mu nekk koo xamante ni kii histoire senegal Sénégal dina retenir noowam ci taxawaay bi nga xamante ni bii amal na ko mu nekk taxawaay boo am solo sénégalais yu bari rafet lu ab taxawaayam Madiambal Diagne mi nga xamante ni bii génn na ngir jaxase xel yi waaye ginnaaw bi mu jaxasee xel yi aussi tamit ñu mel ni Pape Alé Niang génn nañ xamle li ñu xam ngir delloo siwaat xel yi loolu nag dafa nekk loo xamante ni lu am solo la jàpp naa ni ñu mel ni ay Pape Alé bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñu baax lañ ci démocratie réew mi ñu baax lañ tamit ci li nga xamante ni bii mooy li ay xibaar yoo xam ni day wér ba noppi tegu ci dëkk ak loo ko mën a waxal ak loo ko mën a contre tey ñi nga xam ni jàppee nañ ko noon démb ñoo ko defoon ay alliés taxaw ne Pape mooy ki fi gën muy jël ay risques. def loo xamante ni bii tey wax dëgg fa yàlla def yàgg na koy def mu nekk loo xamante ni bii lu am solo Pabal dama ko mës a dégg benn bis mu wax benn wax boo xamante ni bii wax bu am solo la bi mu koy wax mooy bi Sid lamin génne àddina yàlla na yàlla doole ay leeram Pape wax ni moom de li mu bëgg mooy fexe mel ni Sidi Lamine Niass loolu mooy kàddu yi nga xam ni moom la Pape Alé yëkkati woon loolu nag jàpp naa ni mu ngi ci yoon wi parce que dafa am lu bari loo xam ni ñoom dañ koo bokkale mook Sidy parce que Sidy Lamine ñu bari ñoo xamante ni bii tey dëkkale nañ ko fu ne féetale nañ ko fu ne et pourtant ñëpp mujj nañu àndandoo nangu genn kàddu gi ne Sidy Lamine nekkalu fi woon ku askan wi Pape nag dinañ ko dëkkale fu ne moom it ñi ngi koy jëmale fu ne démb Macky la woon tey ñu bëgg a taxaw ni ko Sonko nga ëllëg mën nañoo taxawit ne ko diw nga mais li am solo rek mooy nit nga xam yow fi ngay teg sa tànk jàpp parce que li nga nekk bu soppeekuwul muy dëkk léeg nit ñi moom mën nañuy soppeeku waaye yow xàmmeel li nga xamante ni bii tey moom moo moom nga ne muy lan dëgg dëgg c'est très important boo ci nekkee ku ci nekk nekk ak yow ci dëgg ku demit bàyyi la ak dëgg ëllëg bu ñëwaatee it fekk la ak dëgg kenn mënut a nekk ci dëgg di wéet te nag li wér mooy askan wi moom ñi ci ëpp dëgg googu la ñu bëgg donc Pape Alé ñu ngi lay félicité encore une fois ci taxawaay bi nga xamante ne bi amal nga ko démb ak ci say liggéey yu baree baree bari façon taxawaay yi nga xam ne yaa ngi koy ame du ma ne taxawaay féeteeg askan wi déedéet waaye dama naan féeteeg dëgg parce que féeteeg askan wi. loolu ñu bari dañ koy wax mais léeg-léeg bu askan nekkee ci njuumte danga leen a war a jubbanti teg leen ci li nga xam ni mooy dëgg féeteeg dëgg rek mooy li wóor waaye li bon mooy dama féeteeg ñii c'est parce que rek ñooy askan wi déedéet nañu féeteeg dëgg même bu askan wi juumee nga teg leen ci dëgg waaye nag Sénégal moom li ñu seetlu mooy la plupart li ëpp muy askan woowu dafa am ñoom ñooy ñi nga xamante ni daanaka booy seetlu dëgg rek la askan wi di féete maanaam askan lañu woo xamante ni bi askan bu bëgg dëgg lañ moo tax li nga nekk doo ci wéet teyit li nga nekk booy boo xam ni sunu borom moo la ciy fay kon papaale ñu ngi lay féliciter ci sab taxawaay dogal bi nga xamante bi wadd na fekk na maître El Hadj Diouf mu daadee taxaw ci plateau nekk fa di def ab émission yan kàddu mooy kàddu yi nga xam ne moom la ci njëkk a yëkkati ñu ànd ak rési déglu ko te dellusi. donc le tribunal d'instance de Ziguinchor annulé na radiation Ousmane Sonko kon Ousmane Sonko moo wax dëgg du contumace parce que li taxoon ñu dugal radiation bi mooy L29 situation état de contumace la justice sénégalaise. nee na maître El Hadj Diouf justice sénégalaise nee na Ousmane Sonko du contumace. wax waxul loolu. annulé na kon boog radiation. wax léegi lii lii day wane ni Sénégal yu bëri y compris pas Moussa. Mhm. xamuñu lan mooy justice. justice décidé wul ne Ousmane Sonko day bokk. yëpp justice pare bu y' a pas de décision définitive. mais fii lañ ni Ousmane Sonko. violé wul mais dafa am corruption de la jeunesse. rek ñu ne justice bi nee na Ousmane Sonko violé ñëwoon. d' accord ci même deux ans yi. bi ko jugé mu nekk doo dix ans ñu ko viol la procureur bu defoon appel bu d'accord ci décision bi mën nañ ni viol la léegi dix ans Mame Mbaye Niang defee deux deux mois pour Sonko procureur def appel Mame Mbaye def appel deux deux deux mois sursis def ko six mois kon première décision d'un juge bu taxaw di justice nee day mel ni fa la day mel ni àtte bi fa la mais ci liy njëkk génn lii li maanaam ni ñu ko génnee ci liste électorale baaxul léegi day léegi warul bokk. nu mu koy defee kan mooy maye loolu. mais juge d'appel. ah juge d'appel. Hmm. moo ñëw ne lii ngeen bañ. ma nangu naa ko wala lii ngeen nangu bañ naa ko juge bi fii ne kaw toujours. ban ak la ñu posé pour ñu mën a dem foofa leeral ko laa. wallaahi dama ni. Hmm. bu amee décision de justice bàyyi leen. naan comme acte bu am na nee nañ di violé wul. dafa def corruption de la jeunesse léegi waa ji violé wul alors que bu bu ñëwoon dem. noonu ñu taxaw d'accord ma rek mën na demaat viol. am na ñu reprendre jugement bi bu procureur demoon d' accord muy décision bi ñu reprendre ko mën a nekk viol ñu demee en appel. donc ñu ne loolu viol amul viol amul. léegi kon annulé décision rek ñëpp ni nee nañ viol amul léegi waa ji violé wul. oui mais bàyyi loolu. léegi mais annulation bi annulation bi oui. ci la jël si waaw. annulation bi. oui c' est pas définitif. donc dañuy yëg yëgaat. donc première décision la. oui noo koy apprécier yow. noo koy apprécier mooy l' indépendance de la justice. ñi taxaw fii di ŋàññi Macky Sall war nañu am gàcce. justice bi toujours génn foo xam ni day wane day wane ni justice indépendante la am te gàcce la ko ñi nga xam ne dañu ni <coughs> président moom day dagg bopp Ousmane Sonko waroon bokk tey ñoo ñëwoon nañu am gàcce président masul jox instruction contre Ousmane Sonko les juges là ils sont jaloux de leur indépendance ba ñuy jàng dañoo am Macky Sall ba ñuy am diplôme ba ñuy prêter serment ni lu ñu wax dëgg la li gëm ni mooy dëgg dañu àtte. waaw kon kon kon lii mooy conséquent may ma may ma. waat dafa fort may ma. waaw dafa fort. waaw kon dañuy xalaat seen bàmmeel. Mhm. xalaat dañuy waat. kon ku taxaw di yàq dégg juge yi naan Macky Sall mooy décidé Macky Sall mooy tëj Macky Sall mooy bokk. léegi kon finalement lii est-ce que ci yow maître mooy kon finalement dañuy reprendre tout à zéro dañu demaat ba DG dañ koy jox ay fiches am. jërëjëf Rési ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, Pape Moussa dafa yem ci li nga xam ni mooy la xew. léegi ñu laaj maître El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf moom yamul ci li xew mais dafa ne Pape Moussa yéen xamuleen justice et pourtant Pape Moussa defut lu dut rek répété waat la nga xam ni moo xew ca Casamance loolu rek la def dogal bi juge bi jël mooy que ni nangul na ni Ousmane sonk la nga xamante ni bii moom lañ ko teg jaaduwul. foofu la Pape Moussa yem mais message bi gis nga ko bi mu ñëwee c'est pour dire que ni parrainage technique la ak boo xamante ni moom la ñenn ñi di def maanaam bu ñu amut ci lii lu ñu wax dañuy dem jëli ji yeneen maanaam boo gisee tudd na fi Mame Mbaye Niang tudd na fi Adji Sarr dossier viol yooyu yëpp c'est parce que amut lu mu wax ci lii li xew li xew amu ci lenn loo xamante ni moom la ci wax moo tax mu dem jëli ji ay dossier boo xamante ni bii àtte nañ ko te it yóbbu nañ ko fañ ko war a yóbbu donc ci lii rek mënoon na cee yem mais yemut ci lii mais dafa génn li nga xamante ni bii moom la ñuy wax géew bi dem ci beneen terrain pour mën a wax loo xamante ni bii moom la bëgg a wax lépp xam nga lu bari loo xamante ni bii tey parce que nit ñi aussi tamit. ñi jàng droit ñi ngi fi nekkul ni ña toog di àtte rek ñoom ñoo jàng droit professeur yaa ngi fi ñi leen jàngal ñi ngi ci pénc bi ñi ngi ci plateau télévision yi ñi ngi wax nit ñi dossiers yi nit ñi xam nañ ko fi mu toll ni Sénégal yëpp xam nañ li nga xamante ni bii mooy li xew tey jii bu fekkoonte ni bii tey Ousmane Sonko nekk na ci naka sudut noonu ci dossier yu bari kenn du ci ànd ak moom du kenn koo xam ni da ci ànd ak moom. waaye dossier boo ci yëkkati ci yi nga xamante ni moom la ñuy wax am na loo xam ne bi xas na ba walangaan ci penc bi ñëpp gisandoo ko te loolu nga xamante ni bi moom la ñuy gisandoo mooy permettre askat wi tamit am ci beneen gis-gis bu wuuteeg léeg-léeg li nga xam ni moom la ñuy gis ñu àtte ko loolu moo tax askan wi na mu jàppee woon justice dootu ko jàppee li nga xam ne mooy justice xam nga tey bu ñu demee ba ñi nga xamante bi ñooy DGE ñi nga xamante ni bii tey ñëpp nangu nañ ñi parce que man képp koo xam ne déglu naa la nga xamante ni sa xam-xam màcc na ci lu jëm ci wàllu kuy tere kuy nangu dañ ne amuñu sañ-sañ bi nga xamante ni bii tey moom lañ jël muy ndogal bi ñu jël amuñu sañ-sañ bi parce que conseil constitutionnel ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo war a valider maanaam liggéeyu conseil constitutionnel du ñoom ñooy ñi ko war a def li leen war rek mooy joxe fiche parrainage bu ñu yeggee ca daj jëpp ga nag. kay bokk ak ku bokk am na ñoo xamante ni bi ñoom lañu ko jagleel loolu dafa nekk loo xamante bii tey mbir mu wér la maanaam procès bii nga xamante ni bi moo am amam warutoon a ne wala bokk warutoon a nekk ci jamono ji parce que procès bii warutoon a nekk ci période bi parce que ña tax lii am non seulement nekkul ni ñoom ñoo war a tax mbir mi am loolu mooy li nga xamante ni bi tey mooy li juge bi àtte bokk kook képp koo xamante ni kii tey yëngu nga ci wàllu juge te amoo parparloo yëngu nga ci wàllu yoon te amoo ci parparloo discours boobu mooy bi nga xamante ni bi moom ngay amee loolu mooy li nga xamante ni bi tey moo tax sénégalais yi jóg tàccu ki nga xamante ni kii mooy juge bi doon juger mbir mi parce que man gëm naa ni Sénégal li ëpp ci ñi nga xamante ni bi ñooy ñiy àtte ay nit ñu jub lañ tey jubal man moom loolu mooy li ma gëm contrairement ak ñu bari nag li ñu gëm mais man dama gëm ni bi ñu dalee parce que ci problème mu Ousmane Sonko rek ngay gis loo xam ni kenn mësu koo gis wala nga mës koo dégg ci penc bi waaye loolu da ngay compter ñaata juge ñooy ñi nga xamante bi ñoo ko jugé ak ñaata juge ñoo nekk ci li nga xamante ne bi ñooy réew mi bari nañ lool. ñii nga xamante ni bii tey ñoom ñoo yor dossier Ousmane Sonko yi maanaam bu ñu ko doon jël zéro virgule nangam pour cent la kon warta tax ñu dëxa ñëpp nag ci benn saak ne ñii ñëpp nii lañ mel man gëm naa ni juge bi nga xamante ni bii atte na démb ñu bari ñu mel ni moom ñi ngi ci biir ñi nga xamante ni bii tey ñoo nekk ndawal yoon li donc nag ñu koy féliciter encore une fois ci dogal bi nga xamante ni bi jël na ko mu loo xamante ni bi man damay wax ni jël na ko ngir yoon waaye jëlal na ko banqaasub yoon ci réew mi waaye itam jëlal na ko doomu réew mi muy jëlal na ko it askan wi askan wi retrouver wu nañ ci moom dama jàpp ni nit la koo xamante ni ki histoire dina retenir nom bu baax a baax a baax a baax a baax xale yaa ngi koy partagé fu ne di wane mbégte ak kontante ci liggéey bi nga xamante ni bi amal na ko ak doxalin bi nga xamante ni bi def na ko loolu nag nekk lu am solo parce que feek ñi ngi wax dëgg rek te dëgg rek di dëgg wallaay du ngeen dégg benn yoon askan wi doxalee neneen parce que nag askan wi miir lañ yore nit ñoo xamante bi ñu dal te bëgg jàmm moom lañ yore waaye jàmm day lalu ci siraatal mustaqim muy yoon wu jub jàmm day lalu ci njub bu ñu jubee rek tey jubal jàmm rek lañuy am kon donc euh, Ousmane Sonko nuru luy bokk ci élection yi moom am na ñu bari ñoo xamante ni bii nag bugguñu ko ñi ko bëgg moom bariwul parce que am na candidat yu bari yoo xamante ni bii li tax ñu sóobu ci làng gi dañuy yaakaar ni danañ leen téel mbër mii nga xamante ni bii moo leen mën a daan bu ko defee ñoom ñëpp nag nekk ñoo xamante ni bii rek ku ne mën naa am sansam donc moo tax Ousmane sonk moom ñi bëgg mu bokk bariwul mbokk yi ak xarit yi dañuy dem déglu ji ki nga xam ne moom la ñuy wax Mohamed Boun Abdallah Dionne nekkoon fi premier ministre diirab juróomi at am na ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ñu déglu ko soog a ñëw. bu fekkee société yi nekk sa dëkk yëpp moom moo ci benn looloo dar Irlande Google li ñuy wax les GAFA Google internet Facebook euh, société yooyu yëpp Twitter ñoom ñëpp def seen siège européen en Irlande bu at mi deewee ñu jël bénéfice yëpp yóbbu Amérique ah loolu nga defee ne dina dina ah, enrichir mais melool réew mu réew mu mel ni Sénégal soxla na loolu aussi tey réewum Sénégal xam nga kuy premier client ki nga xam ne mooy gën a jënd ci réewum Sénégal li ñuy exporté Suisse mooy client bi gën a mag Sénégal avant Inde la woon ñu fay yónnee acide phosphorique acide phosphorique boobu ñoom ñu ciy defar engrais di ñu ko jaayaat ñun moo tax ma ne la dafa am ñaari école ci mbir yi il faut ñu ñu d'accord loolu nga soo ma mayee rek ah, di nga xam lu tax ma nekk candidat ak lu lu ma loo lu tax ma différent de da ñeneen yi lu tax ah acide phosphorique dañ ko daan yóbbu inn léegi dañu ne Suisse mooy suñu client numéro un lan la ñuy jaay Suisse suñu or Suisse di ko rafine ñun suñu tëgg yi amuñu or ñaata emploi la usine or bi di am nga defee ne mat nañ mil usine or du pour emploi usine or baax na mais dama ne man bu fekkee sénégalais yi fal nañ ma muy toutes les ressources naturelles yi nekk ci dëkk bi le pays Sénégal suñu gouvernement dina monter en puissance dans le capital ci société yi nga xam ne consortia d'exploitation que ça soit pétrole gaz zircon or lépp lu ni mel dinañu monter en puissance ci biir Norvège boo fa demee tey la tax dëkk ba développé plus de 60 pour cent seen pétrole gaz waa Norvège ñoo ko moom Norvège tey mooy dëkk bi nga xam ne ci Europe salaire moyen bi li ñuy fay norvégien moo ëpp ci Europe moo tax ma ne mbir mi du ay affaire u cadrage soo demee tey wax naa Irlande soo demee Luxembourg ay banque offshore rek a fa nekk borom milliardaires yi fa yëpp fa la ñuy denc seen xaalis ci suuf mais boo fa demoon tey ca ca Luxembourg Luxembourg taux de croissance bi muy affiché kenn xamul nu mu toll ne le PIB taux de croissance bi ñuy wax mooy du produit intérieur brut produit intérieur brut nag mooy lépp lu ñu liggéey ci réew mi le revenu national brut mooy li ngeen moomal seen bopp d'accord man foofa laay laal wan li may liggéey man du pour fonds monétaire wala banque mondiale baax na cadrage bi baax na cadrage bi baax wante doyul am na ñoo xam ne nag bu cadrage bi baaxee ñu doodu seen dënd man de ñooñu nag école la bu nekk ci biir gouvernement yi te ñooñu ñoo yore nag ñoom levier yi ci monde ñooñu ñooy déey man de su ma nekkee chef d'état ñu mel noonu duñ ma déey d'accord ku la dégg ngay wax yépp peut-être da ko bëggul tudd Amadou Ba nga bëgg a wax. tudd ma ah, Amadou non si si si dama koy tudd non non non non du ma ko tudd laa wax. xoolal école bi may wax man xoolal ne ma école bi may wax moo fi nekk depuis indépendance. foo dégg ay ajustement structurel ak. ñooñu gëmuñu industrialisation waxuñu industrialisation et les politiques actives d'emploi waxuñu ko ñoom xam nga li ñuy wax croissance <laughs> croissance pour qui croissance boo xam ne bis bu nekk 1000 xale ci semaine ñu ne wàcc nañu îles Canaries loolu boobu ban croissance jërëjëf Rési ñi ngi leen di sant di leen gërëm kii mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne juróomi at yu mu nekk premier ministre bu Sénégal moom moo ñuy wax lii aka neexoon kàddoom yi jóge ci koo xamante ni kii musta doon lenn ci réew mi bu boobaa dina neex a gëm lool que ni bu faloo dana doxale noonu aka neexoon bi mu amee xalaat yii yëpp gis ni réew mi doxalee wuñu mu daadee tekki ba tànkam génn ci nguur googu denose li wax ko ca ba wax ja safee aka neexoon Mohamed Boun Abdallah Dionne mii jëfee woon kàddu yi nga xamante ni moom la doon jëf moom lay wax nii tey Mohamed Boun Abdallah Dionne dafa am ak réew mi taarix boo xamante ni kenn du ko fàtte ilaa yawmi diin Eh, lii muy wax nii ba expliquer ba wax defe naa Norvège la wax wane ni la ëpp réew maa ko moom ci seeni mbir pourtant loolu la sénégalais yi doon kaas bi pétrole bi di soog a génn ñuy soog a wax ni Sénégal am na pétrole li ak li daal di fay wax mbiru Aliou Sall ak lu ni mel même Mohamed Boun Abdallah Dionne mi moo génnoon nañu mbirum pétrole bi ku ko fi waxati di ñu menacer. di napp sénégalais yi ne ku fi yëkkateeti kàddu gi waaw ku ko fi waxati et pourtant tey mi ngi ñëw di ñu gëmloo nañu moom kat lii la gëm lii nag discours la rek pour jaayu parce que dañu jëm ci tànn ana kan moom lañ sénégalais yi soxla pour teg ko ci réew mi discours bii mu amee mooy discours bi nga xamante ni bii tey mooy bi ñu Ousmane ko jaay senegale yi bañu adhéré ci nit ñi topp ko ci ci ay dénoncé aussi tamit wax ni ngir def ay industrie ci réew mi taxawal yenn yi même discours bi moom la man dama jàpp ni sax dafa dem wuti ji livre solution këru ko ñëw toog ngir fas yéene nag taxaw wax ni lii mooy programme am waaye lam ñu doon jaay xam naa muy plan Sénégal émergent ak yoonu yokkute xam naa da caa gisut lii nga xamante ni bii tey moom la ñuy wax parce que lii moom gis nañ ko ci beneen livre bu wute ak livre moom ba nga xamante ni bii tey ak euh, programme ba nga xam ne moom la doon exécuté bi nga xamante ni nekk na juróomi at ci mbir mi ñoom ñi ñëpp nag dañu bëgg a tëb mel ni li xew duñu ci dara dégg naa ku mel ni Aly Ngouille njaay mu ne nguuru président Macky Sall nag président Macky Sall la ma ci ëppale maanaam mel na ni sax ñoom bugguñoo seddoo président Macky Sall li xew et pourtant nag aka neexoon nag ñu nangu ko nag assumer ko wane ni li xew yépp wax dëgg fa yàlla nag ñoom la ak président de la république que ni mu baax ak mu bon su baaxee ñu génne li baax wax ko parce que président def na ci réew mi nag loo xamante ni bii nit ñi gis nañ ko donc mën ngeen sax assumer loolu parce que man damay jàpp nit ñii sax Amadou Ba moo leen tane parce que Amadou Ba moom ñëw na nee na continuité la wax maanaam li nga xam ni moom la président Macky Sall teg ci loolu la ne te loolu lay jaay jàpp na ni loolu baax na waaye yéen ñi nga xam ne woon ngeen ci nekk ci diirab juróomi at ba noppi wëlbatiku bëgg a taxaw ne lii kat baaxutoon te nga diriger woon gouvernement bi ngir nit ñi gëm la nag dëgg-dëgg du yomb kon defe naa ni sénégalais yi moom képp ku jàpp ni yaa ñi ngi nelaw. boo yeboo nga xam ni sénégalais yi bañ jógee yàgg na xoolaatal sa mbalaan te xam ni amatul ku tëdd ci lal bi sénégalais yi waxuma la yeew waaye dañoo jóg dem nekkatuñu ca lal ba donc nag loolu mooy li nga xam ni moom laa leen di xamal jàpp naa ni yéen moom yéen ñi yéen ay nelaw mbokk yi ak xarit yi ñuy am mbégte ak kontaante mu nekkoon l'émission des émissions di gërëm ñi nga xamante ni bi ñoo nekk ci xarala gi du Alaaji ab du Abdou Top Ablaye jàlloo di gërëm sony bu Diop directeur programme di leen jox dig daje àjjuma ak ci beneen l'émission des émissions jërë ngeen jëf